gama fodela min do والأرض ودعا للأنام فيها فاقهة ونحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يهرجوا وظنوا أنهم مانعتم سونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبون وقذف في قلوبهم الرعب يهربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاحتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لكم تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبأت به وأطهره الله عليه أنرف بعده وأنرد أنبأ فلما نبهها به قال من أنبأك هذا قالت نباني العليم الحكيم إن تتوبا إلى الله فقد ساب قلوبكما وإن تزار عليه فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنون والملائكة بعد ذلك زين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم duggee ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu ko yeggale ci alhamdulilahi rabbil alamin bala muy dugg ci waxtaan wi di sant yàlla di ñaanal xalimatu soxna xalimatu sunu bàjjen bii génn àdduna di jabaram moom mii ndax borom këram magam la moom mii mooy imam Moussa Ansata kon daal ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na suuf oyof ci moom yàlla na ko yàlla teeru ci teeru bi gën a rafet moom daal lay njëkk a ñaanal ndax moom daal moo am saas tombe ci bésu yàlla bu tedd bi muy ajjuma tombe it ci xewu nitu yàlla ak liggéeyal yàlla ji jihad jihad bi doyu ko mu sol dàllam dem mauritani dem ci Cheikh na Cheikh Saad bu def fa fukki at ginnaaw bi ñu ko ñaanale ñi ngi nuyu شريف شيخ سيد Khayr bi nga xamee ki nga xamante ni moo taxani woon ba tey ba tey jii ñuy togg lii ñuy togg lii ba man koo lekk ba man koo lekk suñu ci jógee ñu nuyu suñu kilifa boo xamee ni moom day su gisee waa dëkk bi daal di placé waxam diggante man diggante moom mii ak siidil xayri ndax nag daal mooy kilifaam kon moom mii su waxee ba pare moom moo war a tëj wax ji su paree jox sërif mu ñaanal ñu noonu daal la ñu ko bëggee waxtaan wi day dafa am daal coppite bu ci am dafa tàmm. su ñëwé fi di jéem garamaté su ci joggé di jéem wax ci Cheikh Fodé su ci jógee dooga nak nuy ñi nga xamné gan nañu tey daal lolu dafa am coppite bu ci am nuyo yoyu ak garamaté yi wa dëkk bi yëpp ñoo daje yëkëti wax ji tekko ci loxo alkali mini mu defe ko ci ci façon bu rafet ginnaw lolu dafa dafa am li arab di wax taraddud taral dut maanaam ixtilaaf hésitation gannaaw ba ñuy wax waxee ginnaw bi ñi wax waxee ndax am na lu ma wax ndax mom amna na lu mu wax mané fuma jaar wax mune ah man kay fuma jaar dina wax li may wax nga. lii may wax. ci lislaam laa ko bugg a wax. ci lislaam laa ko bëgg a wax. ñu déggaale ci Cheikh Fodé. ñu déggaale ci Cheikh Fodé. ñaareelu point bi. ñaareelu point bi. ma bëgg wax. mu bëgg a wax. xew-xew bi nga xam ne. xew-xew bi nga xamee ni. moo xew tey. moo xew tey. ci jamono ji ñu nekk. ci jamono bii ñu ne. muy nag élection yi ñu jëm. mu yëngal réew mi. mu yëngal réew mi lool. yëngal ko lool. yëngal ko lool. ñu bëgg cee waxtaan. parce que ndax tey boobu la ñuy sax njëkkee boobu day la ñuy njëkkee parce que yàlla daf ñu xamal ne ndax yàlla ci boppam daf ñoo xamal ni yéen doomi aadama yi doomu aadama yi yéen jullit yi nangeen jullit yi na topp parce que baatu atiiu baatu atiiu atiiu atiiu mooy topp leen mooy topp leen dégg jël leen ndigal ci boroom xam-xam yi bu ngeen jëlee ndigal yàlla ba pare su ngeen jëlee ndigal ci yàlla ba noppi na ngeen ko jële ci boroom xam-xam su ngeen jëlee topp boobu wala ndigal li ci boroom xam-xam yi ba noppi na ngeen jox nag ñu yor àdduna seeni cër cër boobu su ngeen leen ko joxee ba pare. cër boobu nag su ngeen ko yëkkatee jox leen ko ba noppi. bu ngeen amee li ñuy wax utante. bu ngeen nu amee lu ngeen di wax utante. arab di ko wa in tanaza'tum. wa in tanaza'tum. si si si loolu. ci loolu. mu ne nag bu boobaa. mu ne nag bu boobaa. jël leen lépp. jël leen lépp. ngeen teg ko si loxo yàlla. ngeen teg ko nag ci loxo yàlla. li tax mu jëlee tax mu jëlee wax ci foofu. moo di xëccoo bi. moo di xëccoo bi. wa in tanazatum boobu. dañ fa yegg. dañ fa yegg. xëccoo bi rëy. xëccoo bi rëy. xuloo bi rëy. xuloo bi rëy. wax yi rëy. wax yi te yàlla ne. te yàlla ni. si yéen jullit yi. si yéen jullit yi. bu ngeen yeggee si loolu. bu ngeen yeggee ci loolu. bàyyi leen lépp. bàyyi leen lépp. ngeen teg li ci des. ngeen li ci des. ci loxo. ci sama loxo. parce que man. ndax man. la ngeen di xëccoo. la ngeen di xëccoo. ci xeex. ci di ci xeex di ci xuloo di ci xuloo di ci saagante man yàlla rek maa koy joxe loolu mooy suñu dégg politique bi. nee na loolu daal mooy suñu dégg-dégg ci wàllu politique. parce que yàlla def na. ndax yàlla def na. dañu liggéey ci nguur. dañoo liggéey ci nguur. ñeent fukki at fukki at ak ñaar. yoo xamee ni fanweer ak ñaar yi fanweer ak ñaar yi ci métier ci métier bi gën a sensible gën a sensible ci métier yi ci métier yi ñi koy wax diplomatie ñi koy wax diplomatie fanweer ak ñett fanweeri at ak ñaar yooyu fanweeri at yooyu ci métier boobu lañ ko def ci métier boobu lañ ko def ba nga xam ne ba nga xamee ni lu ñëw rek lu ñëw dinañu mën a jéem a wax dinañu mën a jéem a wax la ca am solo la am solo loolu moom la ñuy bëgg a def loolu daal moom lañ bëgg a def ñun ñii lu ñuy yàgg yàgg yàgg ci gouvernement ñeen fukk at ak ñaar mësuñoo bokk ci benn parti politique. te ñaanu ñaanuñu yàlla fii ñuy dee ñu bokk ci parti te ñaanuñu yàlla yi ba bañuy faatu yàlla na yeex duñu bokk ci parti politique. li tax ma jiital loolu. li tax mu jiital loolu. mooy li may bëgg a wax. mooy lii muy bëgg a wax. damay ragal. day ragal ñu ne. ñu ni moom kat moom kat fii la féete fii la féete. li may bëgg a wax mooy. li muy bëgg a wax mooy. xamuñu luy ñëw ñun dey xamuñu luy ñëw. wante li paase. waaye li paase. gis nañu ci réew mi. gis nañu ci réew mi. fii ci joogaan. ci joogaan. loo xam ne. loo xamee ni. ba ñuy commencé bi bii. ba ñuy commencé ziar ku ñu waxoon ne dina fi am. ku ñu waxoon ne loolu dina fi am. duñ duñu ko gëm. lan. loolu muy lan. soxla ndox. soxla ndox. ubbi robinet. ubbi robinet. nit ki nit ki. bu defee lu baax. su defee lu baax. da koy reconnaître. daa loolu da nga koy nangu. wax ko wax ko. fekk fii la fekk courant. fii la ñu fekk courant. fii la ñu fekk téléphone. fii lañu fekk téléphone. mais ku ne woon. waaye ku ne woon. il y a dix ans. il y a dix ans ci ginnaaw. joogaan dinañ fi ubbi robinet. joogaan dinañ fi ubbi robinet. ñun da ngay caaxaan. ñun la déedéet loolu mënta nekk. donc ka ko jëlee sa région de Thiès. kon nag ka ko jëlee fii ca région de Thiès. indi ko ba fii. indi ko ba fii. dañu koy delloo njukkal. dañu koy delloo njukkal. parce que moom moo ko def. ndax nag moo ko def. waaw lislaam xamal ñu ne. lislaam xamal ñu ni ku gërëmul nit ñi. ku gërëmul nit ñi. bul gërëm yàlla. bul gërëm yàlla. parce que boo gërëmee yàlla. ndax boo gërëmee yàlla. te nit ñi li ñu def ci lu baax. te nit ñi li ñu def ci lu baax. nga bañ koo wax. nga bañ koo wax. boo ma gërëmee man yàlla. soo ma gërëmee man yàlla. du ma ko nangu ah du ko nangu nag. loolu moo tax ñu wax ci. loolu daal looloo waral ñu wax ci. ñu bëgg nag comme wax yii comme wax yii dem ci télé yi day dem ci télé yi dem ci rajo yi dem ci rajo yi ñu profité ci xamal waa réew mi xamal waa réew mi ñu jiite réew mi ñu dey waa kër Cheikh Fodé Lamine Ndong waa Jogaan waa il yi waa il yi Sénégal yëpp sax waaye nag particulièrement ñun fii ci Diogaan ah am nañ nag ay soxla soxla yi bi ci jiitu tey mooy réseau téléphone loolu daal bëgg nañ ku ñu ci jàppale. dox nañ ci. dox nañ ci. wax nañ ci. wax nañ ci. tane na sax ren. tane na sax ren. mais nañ ñu am ko. waaye bëgg nañoo daal loolu ñu am ko. ñaareel li jàppale ñu ci. ñaareel bi li ñu bëgg ñu jàppale ñu ci. mooy courant. mooy ñu soxla la. suñu soxla la. bëgg nañ ñu jàppale ñu bëgg nañu it ñu jàppale ñu ci. gannaaw loolu. ginnaaw loolu. dañ dañu fee am jumaa. poste médical. am ci poste médical. te poste médical. te poste médical. soo ko tabaxee ba pare soo ko tabaxee ba noppi. day laaj équipe. day laaj équipe. équipement boobu. équipement boobu. ak docteur yi fi war a ñëw ak docteur yi fi ñëw. bëgg nañ ku ñu ci jàppale. ah bëgg nañ nag ci jàppale. yooyu mooy suñu doléance. yooyu daal mooy suñu doléance yi nga xam ne am nañ ko. am na lu ma ci fàtte. ñàkkul ni daal am na lu ñu ci fàtte. waaye suñu kilifa buy wax. waaye suñu kilifa buy wax. mën naa am dina ci yegg. mën naa am daal dina ci yegg. Cheikh Fodé nag li tax ma ne moom lay mujjee li tax mu ni moom lay mujjee parce la ndax loolu daal feebar la wax ci mbooloo wax ci mbooloo muy fii muy fii muy feneen muy feneen te waxuma ci Cheikh Fodé ci Cheikh Fodé su ma ñibbee su ma ma wér ah, kon nag du wér de def leen ni ci Cheikh Fodé waaw kay jar na ko mooy sunu maam moom la ñuy mbooloo mi dafay am ñoo xam ne. mbooloo mi day am ñoo xamee ni. dañuy ñëw. dañuy ñëw ndax mbokk. ndax mbokk. ñii dañuy ñëw. ñii dañuy ñëw. ndax wóllëre. ñii dañuy ñëw. ñii dañuy ñëw. ndax dégg. ñii dañuy ñëw. ñii dañuy ñëw. ndax curiosité. ndax curiosité. bon bu ñu ñëwee ba fii. kon nag daal bu ñu ñëwee ba fii. dem te xamuñu. te xamuñu. ki ñu ñëwal. ki ñu ñëwal mooy kan. mooy kan ah loolu jafe-jafe day am. kii ñu ñëwal. kii ñu ñëwal. mu ngi juddoo fii. mi ngi juddoo fii. màggee fii. màggee fii. am ñaar fukki at ak benn. am ñaar fukki at ak benn. ba mu juddoo. ba mu juddoo. ay waajuram. ay waajuram. bure. bure. ak ñilaan. ak ñilaan. tuddee tuddee ko. jaata. jaata. mu màgg mu màgg am ñaar fukki at ak benn am ñaar fukki at ak benn ànd ak ay nijaayam ànd ak ay nijaayam dem nooraani dem nooraani ñii ne bétenti ñii ne bétent ñii ne gambi ñii ne mu gis kuy jàng alxuraan muy gis kuy jàng alxuraan alxuraan ba neex ko bi neex ko mu naxanteeg ñoom mu naxanteeg ñoom ba ñooñu foog ne deena ba ñooñu foog ni deena mu toog mu toog jàng alxuraan jàng alxuraan jàng lislaam jàng lislaam ñaar fukki at ñaar fukki at ak lu topp ak lu topp si dellu si waat comme ñoom dañu ñëw ne dee na. comme ñoom dañoo ñibbi ay nijaayam ni dee na. mu dellu see. bi mu dellu see. ñu foog ni. kii de xanaa soose la. kii de xanaa soose la. muy maa Fodé Demba. muy maa Fodé Demba. mooy Demba mooy Ndong. ci séeréer ci séeréer. soose yi ne Demba. seet soose yi ni Demba. olof yi ak séeréer yi ni Ndong. ñu naan soose yi ne Seydi. soose yi ne Seydi. séeréer yi ne Fay. séeréer yi ne Fay. soose yi ne Jàmme. soose yi ne Jàmme. séeréer yi ne Bopp. séeréer yi ne Bopp. saraxule yi ne Jara. saraxule ni Jara. olof yi ne Njaay. olof ni Njaay. ba mu jànge alxuraan. ba mu jàngee alxuraan. ba ni ar. ñu dindi tuuri jaata ba. ñu dindi nag tuuru jaata ba. tuddee ko fóodee. tuddee ko fóodee. parce que soose. ndax soose. boo amee xam soo amee xam-xam. ñu oowee la fóodee. ñu oowee la fóodee. olof yi sax. olofi yi. naan diw fóoree la. dañu naan diw fóoree la. maanaam diw borom xam-xam la. ñu ne naan diw borom xam-xam la. mu ñibbi si. mu ñibbi si. 1862. 1862. woote ci lislaam. woote ci lislaam. nit ñu baax ñi. nit ñu baax ñi. mag ñi fi nekkoon. mag ñi fi newoon. ñoom jiita Sarr. ñoom Giita Sarr. bu baasul. baasul faamarange sar bu ñoojoor ma Ansu Diouf ma Ansu Diouf bu joogaan bu joogaan ñooñu ñooñu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne su ma leen di lim ñoo xam ne bu leen di lim du fi jóge ñoo ko gëm ñoo ko gëm topp ko topp ko ànd ak moom ànd ak moom bu nga def euh, euh, euh, di oote di woote ñu gis ne oote ba ñu gis ne woote boobu ku dox taxul mu dox mais moom fekk na mu ngi xaar Maba Jaxu waaye fekk na Cheikh Fodé mi ngi xaar Maba Jaxu ba parce que moom ba mu nekkee Gàmbi ndax bi mu nekkee Gàmbi Maba Jaxu Maba Jaxu daf ko daan fekk foofu foofu ñuy waxtaan loolu moo tax loolu moo waral fu Maba Jaxu def jihaad Cheikh Fodé yónnee fa taalibe nit jàppale leen ma Jaxu bu dul woon waxtaan wa ñuy waxtaan di ñaanalante ndi kon Fodé mënul nekk jogaan di xam Maba Jaxu fan lay xeexi ba mu fay yónni ay taalibeem ak i muxaddamam bokk na ci gën a siiw muy maa ansu Juuf mu dem si dëkk bu ñuy wax xeex bu ñuy wax xeex fi Paos Koto. mu dem ci xeex bu ñuy wax xeex xeexu Paos Koto. si dëkk Paos dëkk ba moo tudd. dëkk ba moo tudd Paos Koto. xeex ba tudd Paate Badiane. xeex ma nag daal di tudd Paate Badiane. ñu jàpp ko ci tànk. ba histoire ba ñëpp xam nañ ko. nee na histoire boobu ñu bëri xam nañ ko. loolu ba mu weesoo. loolu bi mu weesoo. comme nanguwuñ koy wuyu. comme nanguwuñ koo wuyu. mu dellu si soose ya. mu dellu ca soose ya. ne leen damay jihaat. ni leen damay jihaat. parce que ña ma doon oo. ndax ña ma doon woo. ñu ma bari. ñu bari gëmuñu ma gëmuñu ma. ñooñu ànd ak moom ñooñu ànd ak moom ñii dañ koo gëm ñii dañ koo gëm ñii dañu xam ne jihaad tiyaaba la ñii dañoo xam ne jihaad tiyaaba la ñu ñëw dugg si il ñu ñëw daal dugg ci biir il yi waral dëkk il yu bari looloo waral il yu bari xamuñ ne kii leen dugal ci lislaam xamuñu ne kii leen dugal ci lislaam Cheikh Fodé Lamine Ndong Cheikh Fodé Lamine Ndong mii ñii ñu naan Fodé Kaba la ñii naan Fodé Kaba la ñii naan Fodé Karamo ñii naan Fodé Karamo ñii naan Fodé euh, euh, nu mu tuddati naan Fodé Maroon mais lan ñetti tur yooyu yëpp. waaye ñetti tur yooyu yëpp. ko waral li ko waral. mën nañ leen ko expliquer. mën nañ leen ko wax mu leer. buñ ko naree. waaye suñ ko naree. fii la ñuy fanaan fii la ñuy fanaan. foo dee karamoo si gën a yomb. foo dee karamoo moo ci gën a yomb. dinañ ko expliquer. dinañ ko leeral. mooy soose ya boo ñëwee ne waaye yéen foo dee mi ngeen di àndal di jihaat. boo ñëwee ci ni foo dee mi ngeen di àndal jihaat kan la. ñu ne ñin foo dee dum. ñin ñu ne foo dee dum. in karamoo lem. in suñu sëriñ la. suñu sëriñ la. loolu moo indi foo dee karamoo. def fi jihaad mu def fi jihaad ay at ay at ba bàyyi jihaad ba bàyyi jihaad dem Casamance dem Casamance fa jihaad def fa jihaad dellu si dellu si dem Mauritanie dem Mauritanie dëkk dem dem xawdu dem xawdu ban at ban at 1900 1900 ba mu demee xawdu ba mu demee xawdu fekk fa fekk fa Mouhamadul Fadil. ceeg fa mu fa la fekk Cheikh Mouhamad Fadil. déedéet fekku ko fa fekku ko fa. dafa fekk mu gaañ. dafa fekk mu génn àdduna. mu laajte. mu laajte. ñu ne ko Cheikh na Cheikh Sadibou. ñu ne ko Cheikh na Cheikh Sadibou. ma nga Tuwaysir. mu dem ci Tuwaysir. mu mu dem Tuwaysir. fekk ko fa fekk ko fa. waxtaan ak moom. waxtaan ak moom. seex na seex Sadibou. seex na seex Sadibou. ñaanal ko ñaanal ko. ne ko am soxla. ni ko dama am soxla de. nit yàlla nga te nit yàlla nga. te xam naa ne am na lu la yàlla. xam naa ne am na lu la yàlla may. ndox man ndox mi ñuy naan. man ndox mi ñuy naan. du sama problème sama problème. parce que kaas sax. ndax kaas ndox rek. su ma ko naanoon waa dëkk bi yëpp mën nañ cee naan. waaye teen laa bëgg de. te teen boobu li tax ma bëgg ko mooy dama bëgg a tabax jàkka Cheikh Fodé gassal ko teen ba ñi Fodé gasal ko teen ba ñii won ko ñi won won won mu won ko fañu wara war gas. li am solo li am solo moy teen ba genné na ndox. teen ba genné na ndox. ndox mu bari bari ndox mu bari. Cheikh na Cheikh Saad bu kontaan. Cheikh na Cheikh Saad bu bik ci way si da cay way. way wa woy wa. ñu ko fekk. ñu ko fekk ci téere bi ñuy wax ci bi ñuy wax. al alaqatul xaarijiya. al alaqatul xaarijiya bu Cheikh na Cheikh Saad mu ciy wax ne mu ciy wax ne. bi urutu way ziqt bi urutu way ziqt daarul yum دار اليمن والبركة والبركة إن شاء إن شاء من قدر السكون من سكون من قدر من قدر من قدر من قدر السكون السكون والحركة والحركة بنيتها بنيتها ملجأ ملجأ للمؤمنين للمؤمنين ولم تزل ولم تزل منافعها منافعها في الدهر في الدهر مشتركة مشتركة هذا هذا تؤمنه تؤمنه وذاك وذاك تطعمه وذاك وذاك تعلمه تعلمه ما المصطفى سلك من هذه وهذه نيتي نيته والله يعلمها والمرء يجزى بما نوى ولو ترك لا اله الا الله donc Cheikh Fodé ngi noonu. donc daal Cheikh Fodé ngi noonu de. mu nekk ak Cheikh na Cheikh Saadi. mu nekk ak Cheikh na Cheikh Saadi Toukhayzit. ba 1907. ba 1907. cheikh na cheikh Sadibou cheikh cheikh Sadibou am intention. am intention ya. tuxu tuxu. joxe Tuxézit. joge Tuxézit. bugg a ànd ak cheikh Fodé. bugg a ak cheikh Fodé. ak cheikh Mahfou. ak cheikh Mahfou. wante ci diggante bi. waaye cheikh Sadibou. cheikh cheikh Sadibou. am lu ko yàlla am lu ko yàlla woon. cheikh na cheikh Mahfou. mu cheikh Mahfou. en 1908. en 1908. demal Sénégal. demal Sénégal. ci sud Sénégal. ci sud Sénégal. fa ñuy wax Casamance. fa ñuy wax Casamance. soxla nañu. kulen nañu ku leen won diine l'islam. lolo tax. lolo tax. cheikh

1911 mu ñibbisi. 1911 mu ñibbisi. il bu nekk mu yóbbu fa élimaan. il bu nekk ci il yi Cheikh Fodé yóbbu fa benn élimaan. bu tabaski jotee mu yónnee ay élimaan. su tabaski jotee it mu yónnee fa ay élimaan. ñu teg ci ñetti at. ñu teg ci ñetti at. mu jóge fi mu jóge fi moom Cheikh Fodé. 1914 1914. loolu mooy histoire Cheikh. loolu mooy histoire Cheikh Fodé ci tënk. looloo tax ñu fiy ñëw. looloo waral ñu fi ñëw. di ko ziar si. di ko ziar si. liggéey bu rafet boobu ndax liggéey bu rafet boobu mu def. yal na ko ko yàlla fay. ko ko yàlla fay. waaye question. solution ba kay. mooy mooy ni. Cheikh Fodé mi Cheikh Fodé mi. est-ce que li ñuy def. def. di ko wax di ko wax. mi ngi koy gis mi ngi koy gis. di ko dégg di ko dégg. balaa may ñëw ci tontu loolu. balaa muy ñëw ci tontu boobu. Cheikh na Cheikh Saadi bu ko ñibbil. Cheikh na Cheikh Saad bi mu ne Cheikh Fodé ñibbil. soo ñibbee. yeggali liggéey bi nga doon def. yeggali liggéey bi nga doon def. wante am kurus gi. waaye nag am kurus gi. koo ci ñaanal. koo ci ñaanal ci kurus gi. teen ba nga ma gasal ba ndox génn. teen ba nga ma gasal ba ndox génn. ndox mi dina génn ci kurus gi. ndox moomu dana génn ci kurus gi. te bu ci génnee rek. te bu ci génnee. mooy soxla ci faju na. ah mooy soxla yi kooku nga doon ñaanal faju na ñaan nga am na. laa ilaaha illallah. mu ne ko boo ñibbee. mu ne ko boo ñibbee. bul nangu ñu suul la ci bàmmeel yi. bul bul nangu suul la ci bàmmeel yi nit ñi de. man na Cheikh Saad ndax man Cheikh na Cheikh Saad bu. yàlla xamal na ma yàlla xamal na ma ni. nitu yàlla kaamil nga. yàlla kaamil nga. te buñ la suulee ci bàmmeel te buñ la suulee ci bàmmeel bi. man xam naa ne balaa am téeméeri at. man xam naa ne balaa nga am téeméeri at ci biir suuf. adduna dégg la. àdduna dégg la. te bu la àdduna déggee. te bu la àdduna déggee. génnee la ci biir bàmmeel. génnee la ci biir bàmmeel yi. day nekk problème. day nekk nag problème. kon boo ñibbee. bul nangu bul nangu mukk ñu suul la ci bàmmeel ñu la ci bàmmeel yi suul nit ñi. looloo tax Cheikh Fodé. looloo waral Cheikh Fodé. bi mu ñibbisee bi mu ñibbisee. jógee Nimzaat mu woo mag ñëpp mu woo mag ñëpp.

ñu ne ko Cheikh fii nga bëgg ñu suul la yi dañ lay ñu ne ko fii nga bëgg suul la fi bukki yi dañ lay lekk de. mu ne man bukki mënumaa lekk mu ne man Cheikh Fodé bukki manuma lekk. ci loxo yi. laa ilaaha illallaah woo di ah. waxuma sax ne bukki mënumaa lekk. waxuma sax sax ni bukki mën na maa lekk. dëkk bi dina ñëw ba wër ma. waaye dëkk bi dina ñëw ba wër ma man. tey Cheikh Fodé ngi tey Cheikh ngi. dëkk baa ngi nii. dëkk baa ngi nii. wër na ko wër naa ko wër na ko de dëkk baa ngi nii. bon man laajte laajte bi ma laajte. kon laajte bi mu laajte léegi. mu ñëw ci tontu bi mu ñëw ci tontu bi. Cheikh Fodé mi ñuy defal lii. Cheikh Fodé mi ñuy defal lii. est-ce que mu ngi ñuy gis. est-ce ngi ñuy gis. est-ce mu ngi ñuy dégg. est-ce que mi ñu demee ci l'islam. suñu demee ci lislaam mu ngi ñuy gis. mi ngi ñuy gis. mu ngi ñuy dégg. mi ngi ñuy dégg. mu ngi suñu biir mi ngi suñu biir. ndaxte dañ ñu xamal ne dañ ñoo xamal ni doomi aadama doomu aadama bu génnee àdduna su génnee àdduna dañuy jël ruuxam dañuy jël ruuxam teqale ko ak yaramam teqale ko ak yaram wi ginnaaw ba mu deewee ginnaaw bi mu deewee ñaari malaayika ñaari malaayika ñëw tiim ruux bi ñëw tiim bi ñu ne waaw ruux bi moom nuñ koy xàmmeeg ñu ni ruux bi nuñ koy xàmmeek yaram wi mu ne bu génnee ci yaramu nit ki mu ni bu ruux bi génnee ci yaramu nit ki day mel ni bu yàlla ji tawee day mel ni su yàlla ji tawee ba taw bi laal xobi garab ba ndoxu taw bi laal xobi garab ndox moo muy toq ci xobi garab ndox moo muy tag ci xot garab gi wàcc ni muy mel ni muy mel noonu la ruux di mel noonu la ruux di mel malaayka yi dañ koy gàttandu ñaa malaayka dañ koy gàttandu def ko ci lu mel ni andu cuuraay def ko ci lu mel ni andu cuuraay buñ ko fa defee suñ ko fa defee ñaari yëf mooy am ñaari yëf mooy aman mën naa am borom bakkan boobu mën naa borom bakkan boobu nit ku bon la nit ku bon la wala nit ku baax la wala nit ku baax bu fekkee ni nit ku baax la bu fekkee ni nit ku baax la ñu jël ruuxam ñu jël ruuxam jëm ak moom jëm ak moom moom ca yàlla. bu ñu ñëwee ci asamaan bu njëkk. bu ñu ñëwee ci asamaan bu njëkk. ba ñuy fekk malaaka yi di woy. ba ñuy fekk malaaka yi di woy. koo kan la naan koo kan la. ñu ne kii dey. ñu ne kii dey. ruuxi Cheikh Fodé Lamine. ruuxi Cheikh Fodé Lamine Ndong la. ñu ne ah kooku de liggéeyal na yàlla. ñu ne ah kooku liggéeyal na yàlla. ñu ubbil ko buntu bi. ñu ubbil ko buntu bi. malaaka yi jàll. malaaka yi jàll. noonu lañ koy defee. noonu lañ koy defee. kii bu njëkk bi bu asamaan bu njëkk bi bu njëkk bi ànd ak ñaari malaayka yi ànd ak ñaari malaayka yi di ko sikkaral di ko sikkaral ba ci deuxième asamaan ba ci ñaareelu asamaan ànd ak waa deuxième asamaan ñu ànd ak ñaareelu asamaan di ko sikkaral ba ñetteelu asamaan ñu ànd ak ñetteelu asamaan di ko sikkaral ba juróomeelu asamaan ñu ànd ak waa juróomeelu asamaan di ko sikkaral ba juróom-benneelu asamaan ànd ak juróom-benneelu asamaan di ko sikkaral ba fa yàlla toog la ilaha illallah bu ñu yegsee yàlla ni ko kan la ñu yegsee yàlla ni ko kan la. la ñu ne Cheikh Fodé Lamine la. mu ne bind leen ko mu ne faa fa yàlla toog. fa yàlla toog. ñaari tableau fa am. ñaari tableau fa ñi baax. ñi ñu ngi leen di bind. ñu ngi leen di bind. ci tableau bi tudd. ci tableau bi tudd. al illiyiina. al illiyiina. ñi baaxul. ñi baaxul. ñu ngi leen di tudd. ñu ngi leen di tudd. ci beneen tableau bi man fàtte ci beneen tableau bi. saafi lii na saafi lii na. saafi lii na fa lañ leen di bind ñoom ga yooyu ñoom. ñu ne ko Cheikh Fodé Lamine Ndong la. Ah, ko kii nag Cheikh Fodé Lamine Ndong la de. mu ne bind leen ko ci illiina. mu ne bind leen ko ci illiina. ñu bind turam ci illiina. ñu bi daal di jël turam ba bind ko ci illiina. buñ ko du bindee ci illiina. buñ ko ca bindee ba noppi nag. malaayika ya malaayika ya dañuy dellu si waat ak ruux bi dañuy dellu si waat bi daw daw di njëkkalanteeg ñii di njëkk ñu ngi àdduna di njëkkalanteeg ñi nekk àdduna di sang di sang di julli di julli di dem bàmmeel ba dem bàmmeel ba boo koy dugal si bàmmeel ba boo koy dugal si bàmmeel ba ñoom ñu boo ko dugalee si bàmmeel bi soo ko dugalee ci bàmmeel bi ñu delloo ruux ba ñu delloo ruux ga ci moom malaaka yi ñëw def seen liggéey. malaaka yi nag daal di ñëw def seen liggéey. comme illiyiina lañ ko bind. comme illiyiina lañ ko bind. bu ñu defee lépp ba mu pare. bu ñu defee lépp ba noppi. fan la ñu jëm. fan lañu jëm. bu nit ñi joxee gannaaw ñibbi. su nit ñi doxee gannaaw ñibbi. ba malaayka yi def la ñuy def. ba malaayka yi def la ñuy kii dee. kii dee. bu malaayka yi pareeg moom. su malaayka yi pareeg moom. day tuxu. day tuxu. fan la jëm. fan la jëm. mu ngi jëm. mi ngi jëm. fu ñuy wax barzaq. fu ñuy wax barzaq. barzaq. barzaq. mooy lan. mooy lan. pour ñu mën a wax ne. pour ñu mën a wax ni. kii dee. kii dee. mu ngi ñuy gis. mi ngi ñuy gis. mu ngi ñuy dégg. mi ngi ñuy dégg. barzaq. barzaq. mooy frontière. mooy frontière. frontière yi lan. frontière lan. adduna. adduna ak alaxira. ak alaxira. dafa am dëkkuwaay. dafa am dëkkuwaay. bu yàlla préparé. bu yàlla préparé. képp ku dee. képp ku dee. balaa yowmal xiyaamati. balaa yowmal xiyaamati di taxaw. foofu ngay dem. foofu ngay dem. bu ko defee yow. su ko defee yow. yaa ngi barzak. yaa ngi barzak. maanaam yaa ngi ci frontière. yaa ngi ci frontière bi. boo gëstoo nii. soo gëstoo nii. di gis waa adduna. di gis waa adduna. boo gëstoo nii. boo gëstoo nii. gis alaxira. di gis alaxira. bon Cheikh Fodé Ndong Lamine Ndong kon Cheikh Fodé Lamine Ndong bu ñu zi ootee ziar bi suñu ootee ziar bi fa mu nekk ci barzak fa mu nekk ci barzak day gestu àdduna day gestu àdduna gis li ñuy wax gis li ñuy wax dégg li ñuy wax dégg li ñuy wax xam li ñuy def xam li ñuy def yal na ko yàlla taxawu yal na ko yàlla taxawu parce que loolu boo ko expliqué ndax loolu soo ko leeralul léeg-léeg nit ñi dañuy def erreur. léeg-léeg nit ñi dañuy def ay erreur. diw deena mu nga ajjana. diw deena ma nga ajjana. ajjana amagul. ajjana kenn demagu fa amagul. safara amagul. safara kenn demagu fa amagul. ñëpp a nga barzak. ñëpp a nga barzak. parce que àjjana pour ñu dem fa. ndax àjjana pour ñu dem fa. il faut bés ba ñuy wax yowmal xiyaamati taxaw. ah faaw nag yowmal xiyaamati taxaw. góor nga ne mooy bésu rëg-rëg ba. ah ñu ne nag mooy bésu rëg-rëg ba. yow ma laa tamliku nafsun. yow ma laa tamliku nafsun. li nafsin. li nafsin. shay'an wal amru. wal amru yow ma idin yow ma idin. kenn rek la kenn rek la lillahi yàlla. laa ilaha illallah. ay bis boobu. ngeen baal ma su ma toppee wax ji. nee na su toppee wax ji. dina sori. dina sori. mais li ma bëggoon a xam rek. waaye li ma bëggoon a xam. mooy ñu xam ne. mooy ñu xam ni. li ñuy defal Cheikh Fodé Lamine Ndong. li ñuy defal Cheikh Fodé Lamine Ndong. mu ngi ne si jàkk. mi ngi ne ci jàkk. xam na ko xam na ko wóor na ko wóor na ko dégg na ko dégg na ko li ñuy def ci zaahir li ñuy def ci zaahir ak li ñuy def ci baatin ak li ñuy def ci baatin mu ngi koy xam mi ngi koy xam de ndax nitu yàlla nag foofu la wuuteeg ñun ñii waaw ñu ngi leen di baalu ak ñu ngi leen di baalu àq. ci wax ju gudd ji. ci wax ju gudd ji. ñu ngi leen di baalu àq. di leen baalu àq. ci njuumte yi ci ci am nag. li ci am yëpp. li ci am yëpp. ci njuumte. ci njuumte. ci man la. ci moom mi la. lu ci jub yëpp. lu ci jub yëpp. yàlla la sopp. yàlla la sopp. wa sallallahu ala sayyidina muhammad وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا اله الا لا اله لا لا اله والدمع مرفعه والدمع لا لا لا لا لا لا لا Seydina Rasulullah la ilaha illallah waay màggal leen Rasul màggal leen Rasul màggal leen Rasul màggal leen Rasulullah màggal leen Rasul màggal leen Rasulullah màggal leen Rasul la ilaha illallah Seydina Rasulullah la ilaha illallah الشيخ سعد الأبينة الشيخ سعد الأبينة الشيخ سعد الأبينة الشيخ سعد الأبينة إن الفؤاد سقي بحب خير بحب خير صلى عليه من صلى عليه من صلى عليه من لقوا بكل ما لقوا بكل ما بتوب عيني لم بتوب عيني لم من حب سيد لا إله إلا لا إله رسول الله لا إله إلا الله بيت عيني لم من حب سيد من حب سيد من حب سيد ما قال رسول الله ترى لين رسول ما قال رسول الله ترى لين رسول من حب سيد يا عبد ذكر من حب احمد لسان عيني يخرج بدمه وهو وتارة مثل تساقط البحر لا اله الا الله لا اله رسول الله لا إله إلا لا إله سيدنا رسول الله لا إله إلا واي ما لقمت ما لورو يا أخي لا لا لا يوم القيامة لا إله zurnaaka ndokkel naa la cheikh sidil xayre doomi cheikh bu nan cheikh sidil xayre ay daraabi ay njëriñ kuy samaam rasulullah دوني سعد الذي دوني شيخ شيخ موقف هذا الهيدر شيخ سيدي الخير سمام برم كان نارك نمسار شيخ سيدي الخير سمام برم صالحين شيخ سيدي الخير سمام أيدرا بأيدرين سمام سيخ سابونين حمدا لمن دعا إلى دعائه وفعل أيدرا بأيدرين لمتاع بالجلال لا سيما يوم الرحيل شيخ سيدي الخير تمام ثم صلاة والسلام على رسول ذي الأنام سمام على رسول ذي الأنام

صلى الله عليه وسلم أيا مجرم مستقنا إلى رسول قبلين فراتلا سبرين فراتلا واو نخوان كيجي لو جير ما يدوش سيرنا سيدنا محمد رسول ثم صلاة وسلام على رسول الأنام وآل وصحب الكرام لا سيما يوم الأخير وبعد ذاك بالنبي محمد وبأبي بكر فحب لمطلبي لا سيما يوم أيها جميع الأنبياء

من العلوم والقبول نعم. بجاي حرمة رسول الله لا سيما يوم الأخير نعم. شيخي خير سمام خلي لنا كل الخيار وبعد واي خلو الممات وما يجب بعد الوفاة لا سيما نعم. يوم الأخير أسرق بنا سبل الهدى سمام قرى البداية أخمدا وجائما بالاحتداء العسيما يوم الأخير شيخنا سمع منين ونجد من الكدر وكل من لو خدر بجاي سيد البصر العسيما يوم الأخير أي شيخ سعد بنينا العيسى الولي الذي بالعلم يستيقظ شيخنا نينا والذي بالعلوم أسر ينتشير شيخ سعد بنينا والذي يجوم والأول يكنزها الشيخ سعد بنينا والذي كثف يدري به الخبار آه كنا نجيبلو نيب bëgg ma fodé la min ndong yeen seen loxo yi ca kaw nee na mu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di alhamdulillahi rabbil alamin nee na mu ngi sant itam gan yi di leen di wax ne assalaamu aleykum wa rahmatullah mu ne ñu ngi leen di dalalit nee na mu ngi fi toog toogaayu chef arrondissement bu il yi eh, mu ngi sant di nuyu préfet mu ngi sant di nuyu gouverneur Fatick di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo leen feetoo kaw te yebal leen si woon ci ngoon ji fii di nuyu di koy jaarale ci irasid ba mu yegg ci président de la république wàcc si ba premier ministre ba ministre de l'intérieur nee ñu ngi sante yalla ndax daje bi ñu daje tay kontaan nañ ci lool mbokk rek ko mën motax ñu wara a mbokk bi bu baax te ñun ko ne ku nekk muñal sa morom moy ñu muñalante mo waral ñu mundu ñu mun tay ni waaye kenn ku nekk su jaaroon yoonu boppam kon bés bi du mel nii mu mel tey kontaan nañu lool ne na foofu day la mun a yem ci ay wax ndax guddi bi am na yeneen kilifa yi ñu si war a wax te li gënoon bari ci lu mu waroon wax waxoon na ko ci ziyaar ba waxoon nañ ko ba pare xëy na dafay répété waat wante waxoon na ko ba pare ak mu ne jërë ngeen jëf mu ngi leen di sant di leen di gërëm bu ñu ci chef de village e, ñu dem ci xaritam dem ci àndandooram dem ci moromam dem ci soppeeyam mooy Cheikh bu Ndong di imam ratib bu Ziguinchor alhamdulilah ginnaaw sant mboolu fa ne dina teewu men. góor fi raw góor ak jigéen maak fa teb mag ak ndaw surtout sirif rawatina suñu sirif bu baax bi alhamdulilah ina ngi mën a paax alhamdulilah ñu ko sant bu baax ina ngi dana rog ñu ko ñaanal suñu borom yi di roga ci no wudo ñus yalla bàyyi ko fi ci kanam kanam rog fa ne waagu na fa dam tef na ina fop yalla ñu ko mën yalla ko yalla defal ñun ñëpp yaa boog alhamdulilah kon boog alhamdulilah lay mesima iliman ke ndefna kam andun fop mais sima iliman ke ndefna kam sénégal fop yaga boog ken fiyarum teref ka magin nañ no yaalo he lam ke taxuna roga layalay na alquran képp nu gidim na nu gidmir na doomi adama ke gidim kiro roog yaag bo megidma waaw megidma wiine to megidma yare tabaraka wa ten fane hetana in men yaa boog alhamdulilah yaa boog alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin comme que fane a yenga alhamdulilah wiin yoq a yoq jërëjëf jërëjëf ah, jërëjëf. ñaan allah incha imaam Thior bu ñu si jogee ñu dem ci son excellence. incha allah kon imaam Thior. Eh, mbokk yi fi daje salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp balu àq ñëpp di ñaan guddi gi yal nañu ko yàlla mottilil barkeel na yal na yàlla yokk barke bi جاي سيدنا محمد مو ملني وقت خنا رك جارو الجدل خنا نوي مبك مينغا خملة موي شريف دي سو بنيب لما يوحنا نك زور من هويتا وإن شتت بك الدار لا يمنعك لا يمنع عنك بعد من زيارته إن المحب لمن يحب زواره لولو شنامتي جاي دنيو وحنا nekk sa sa ci biir réew mi ba am fi ñetti fan ak sa sëriñ te ziyaare woo ko dëgg taalibe waru koo def ndax ko sopp boo ko xalaatee rek cofeel dugg ziyaar dugg na tabaarakallaahu yow la yàlla def suñu diggante ak moom eh, démb dama wàcc jóge ajuma ba ñibbi ma ne suñu diggante ñoom mag ñee ñu sonal ndax ñoo dund ak seeni maam ak seeni bàyyi bàyyee ñu ko kon luñ ci bàyyi rek bàyyi nañ fi ñu war a jaar te wolof dafay wax ne fi sa baay jaar maam jaar dég jam ko sa baay jaar fa dég jam ko soo fa jaaree dég ba jamula la danga dangaa dévier jaaroo ci yoon wi kon ñun li ñu war rek xam nañ ko incha allah suñu diggante ak ñoom te itam ñu góorgóorlu yokk góor góorgóorlu xam nga ñaan dañ koy bàyyi xel di ko seetlu bari na ko fi ñëw de ren déwén mu dellu si fi fekk fi lu fekkul woon te baatu yàlla na rek moo ko fi andi danaay wax ne sunu ndox mi li mu yaatu yaatu bariwul ku fi dox ngir lu ko yéwénal lu paase ñaan bi nga xam ne moo koy defar moo tax ku fonkul li nga am mën na yàqu sa loxo te doo ko jëriñoo lu mag dox ba mu war a jëriñ ñépp nag soo ca génnee sa loxo yaa perte yaa yàqal sa bopp daje yi nag eh, ñu góor góor li di ci bàyyi xel xam nga wax li ci am solo mooy suñ waxee dara boo demee nga yóbbaale ko am loo ca jëfe ren ba déwén su ko defee loolu dina la mën a jëriñ mais déglu ñibbi te no séeréer la reta kundang ngata kundang bisiro bisidiro bisiro ande ken itam ñaajeer mbasana in xaq assalamu aleykum wa rahmatullah bëgg ma ndong yéen seni loxo yi caako mbooloo mi xalifa gi alaaji cheikh siyaako ndong di xalifa maam cheikh fode lamin ndong nee na mi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fay leen nuyoo. maa ngi ñaan di na mi ngi ñaan di sakku ñaan. mooy Chérif bi toog. mooy Cheikh Sidi Xeer Chérif bii toog. buñ ko ñaanalee. bu ñu ko ñaanalee rek. sant ko rek. am lu mu sas boppam. am lu mu sas boppam. ca Jogaan ci Jogaan. yàlla defal ko. yàlla defal ko. li mu sasoon boppam. yàlla dimbale na ci moom Cheikh Sidi Xeer. li ma ciy teg. li ciy teg. yi ñu oo ne leen jàngale yéen ñu nu woo ni ñëw leen jàngal noonu. daaw ngeen ñëwoon fii. ñu gis la ñu gis. ñu gis la ñu gis. dégg la ñu dégg. dégg la ñu dégg. ñu yàlla na sax. amin maa ngi leen di ñaanal. ñu wax li xam ne seddal na suñu xol. ngeen wax li nga xam ne seddal na suñu xol. ndax El Hadj Ibou Sakho dafa wax ne. ndax El Hadj Ibou dafa wax ne. li tayeeg li yéexal toogaay. li yéexal toogaay. dangay gis lu neex. da ngay gis lu neex. te bëgg ko fa baax. nga mos lu neex. nga mos lu neex. te doyul lo nga dégg lu neex. nga dégg lu neex. te bëgg ko baax. te kon yàlla neen yàlla defal lolu kon amin ci darajay Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di sàkku ñaan nag. képp koo xam ne musoon naa nekk xalifa. képp koo jaar nga fi di nekk xalifa. barkal gémmiñam. yàlla barkal sa gémmiñ. jubalal gémmiñam jubalal gémmiñam maa ngay ñaan ngay ñaanal ma maa ngay ñaan nag ngeen ñaanal ma yàlla defal ma yàlla defal ma ko man Cheikh Siaka képp koo xam ne am na yaakaar ak képp koo xam ne am na yaakaar ñëw na ñaanal ma ñëw na ñaanal ma bu ma la ñaanalee bu ma la ñaanalee yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def ci daraja Muhammad ci darajay Muhammad rasulullah allahumma salli ala sayyidina Muhammad xayru kalam ma qala wa dalla nee na dellu addi santaat yàlla subhanahu wa taala نينا ميغي سرمل تي سانغ بوبو غا خمني موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وقر الميامين نينا دي جولي تي نجابوتام اك اندندو ميا اك كيب كو خامني روي اما بعد غناو لولو شيخنا شيخ سيدي خير نينا ميغي نيو مبولو مي يب دي واخني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فاي لنكو نيو kenn ku ci nekk jotaay bi mi ngi lay joxaat di dellu di la jox sa wàccuwaay. mi ngi jiital ci nuyoo bi. ki nga xam ni moo fi toogal borom guddi gi tey. ki nga xam ni moo fi toogal borom guddi gi tey. di xalifaam. di xalifaam. di moom ci boppam. di cheikh ma Mouhamadou Lamine Fodé Ndong di cheikh Siaka Ndong. xalifa cheikh Siaka Ndong. xalifa cheikh Siaka Chérif nee na mi ngi lay nuyu. di nuyu njaboot gi nga xam ne ñoo topp ci sa gannaaw yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu it imaam ratib cheikh bu ne na ndong yal na ko yàlla wéral moom it te guddal fanam di nuyu itam borom dëkk bi sëriñ Njaay di ko ñaanal yàlla sutura Aduna te nga yag fi te amin yan bi la yàlla yan pour nga jiite dëkk bi yan naka Yalla oyofal di gërëm sunu lepp Cheikh Ma Fodé Ndong di ko diko di dama ni def excellence place politique wutu place politique moom daal woot wotewul maire wotewul député déedéet defu ko pour nekk chef de village defu ko it ngir nekk chef de village jogaan defu ko pour xëccoo xilaafa defu ko it pour xëccoo xilaafa déedéet mais lim ko def waaye la tax mu koy def mooy maamam mooy maamam mooy lislaam mooy lislaam mooy askanam mooy askanam mooy dëkkam mooy dëkkam mooy mbokkam lii moo tax excellence Cheikh Mame Fodé Ndong muy def li muy def ci dëkk bi nee na ku màgge Dakar jànge Dakar commencé liggéey commencé liggéey def fanweeri at ak ñeent fukki at ñaar fukki at ñaar tubaab di ko wax quarante deux ans ci administration trente deux ans yi trente deux ans yi diplomatie la ko mu def ko diplomatie ca bitim réew kooku bu retraité kooku bu fekkee ni retraité na delluwaat delluwaat ñibbi di ñibbi si aat ci dëkku maamam ci joogaan di fi investir ay millions di fi ay millions di taxawal bés bi di taxawal bés bi nekk nag ca gannaaw bëggu ci dara jiital ay magam جيت البروم دكبي جيت الامام جيت الامام نك سن غيناو موي دال كوني خمنني لي مو ديف كون يالا ريك تاخ مو وانت إتم كو ديفال يالا ديفال nga sa bop موي ما nga jeffe موي nga jeffe ko li yalla wante itam. wante itam. li yàlla tere ci biir alxuraan nga bàyyi la yàlla tere ci biir alxuraan it nga bàyyi ko loolu mooy jikko ko xam. wante loolu doyul. wante loolu sax doyul. mooy jaamu yàlla yi boo leen wootee. mooy jaamu yàlla yi boo leen woowee. na nga leen woo jëmal leen ci yàlla subhaanahu. na nga leen woo nga jëmale leen ci yàlla subhaanahu wa taala. bu leen woo jëmale leen ci sa bopp. bu leen woo mukk di leen jëmale ci sa bopp. wane sa bopp comme intermédiaire. waa maa ngay wane sa bopp comme onte intermédiaire sa diggante ak yàlla. budul wane yàlla mukk. nga naan bu budul budul wane ak yàlla mukk. kuy wane yàlla moom. kuy wane yàlla moom. wareef la mais nag dafa am ñi nga xam ni dañuy wax ñoom daanaka yàlla lañu. dafa wareef la waaye dafa am ñuy wax sax ni ñoom yàlla lañu. ndax du ñu jàngal kenn yàlla. ndax du ñu jàngal kenn yàlla. kenn yàlla nee na. du nu wax kenn ni ko yàlla nee na du nu santaane la yàlla digle du nu tere la yàlla bàyyi la yàlla tere ñoom daal la ñuy santaane ci seen bopp ak lu nu bëgg rek la ñuy wax ñu ànd ak ñoom kon loolu di du mukk ki xam kon ka nga xam ni moo làq ñeenti fànn yii ak ñetti màndarga yu jëkk yooye mooy ka nga xam ni moo xam xam yàlla nag xam yàlla nag moo gën moo gën nga xam kudul moom nga xam kudul moom mais xam bu àndul ak jëfe waaye xam bu àndul ak jëfe da ngay doon seytaane da ngay doon seytaane rek mooy xam-xam bu jëriñul mooy xam boo xam ni jëriñul borom ñu ni comme nag comme lii mooy aarif comme lii mooy ki xam kon nag kon nag lan mooy tasawuf lan mooy tasawuf suufiyanke mooy kan suufiyanke mooy kan ñuni ni sufiyanke ñu ni sufiyanke ñeenti itam mandarga la am ñeenti mandarga am moy ki nga xamni safa qalbuhu fa safa mooy ki nga xam safa qalbuhu fa safa xolam bi daf ka laabal setal ko wecc ba nga xam dafa mel miroir ba nga xam dafa mel na te loolu bu amee te loolu bu amee ci nit làmmiñ bi làmmiñ bi jëmm bi jëmm bi lépp dafay set lépp day daal di set wecc yépp day yiw ndax bu waxee waxam dana neex ñëpp bu doxee doxam dana neex ñëpp bu toogee toogaayam dana neex ñëpp ndax day yiw ndax xol ba ci boppam moo set na seetu ñaareel gi ñaareel ba ñu ni salaka sublal Mustafa salaka sublal mooy ka nga xam ni. fa nga xam ni fa la rasulillahi doon jaar muy jaar jaaram. la rasulillahi doon wax ak di ko jëf yëpp. kooku daal ci la tënku. def ko muy rëy waaya. ñetteel ba. mooy ki nga xam ni. mooy ka nga xam ni. dafa jël àdduna. dafa jël àdduna. teg ka ci gannaaw tibb jaraam. sànni ka ca gannaaw. mooy rama dunya xalfal qifa mooy rama dunya xalfal qifa kon àddina dara safu ko ci kon àddina dara safu ko ci ndax dafa xam ni kër la bi nga xam ni wéyul ndax dafa xam ni àdduna kër la boo xam ni wéyul zailatun la maxaala zailatun la maxaala ni lépp lu si waay di jëf ni lépp lu waay di jëf ci àdduna mooy loo jiital sa kanam mooy loo jiital ci sa kanam te li gën ci li ñu jiital mooy lu baax te li gën ci li ñu jiital mooy lu baax ommatee moom adduna bu la ommatee moom adduna torox nga torox nga boo ko defee sa gannaaw boo ko defee sa gannaaw sowe nga sowe nga ñetteel gi ñetteel ba mooy ki nga xam ni mooy ki nga xam ni alaaqa alaaqa alhawa toxma alhawa toxma marraj maral xafa marrajal maral xafa dafa mosal bakkan gi dafa mosal bakkanam تفكر أبنقر أبنقر تلول من كي الله سبحانه وتعالى تلول من كي جلي تلي الله الله محمد ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس ni dafa tere bakkan bi destination bi muy dem destination bi muy dem ndax safara la ndax safara la faw nga téye bakkan bi delloo ko mooy li nga xamni moko neex doko def an nafsu wa dunya habibatani xabibataani lakka walilahi adduwataani kama khala shakhs adu abi ndax bakkan dañuy wax ni kharit la dañuy wax ni kharit la wala non la bu bu mbubboo mbubboo xarit waaye wala sax non la mom bakkan bu bu bo bu bo kharit ci doomu adama bi kon ñeent yi nekk sufiyanke bu nu nekkee ci nit rek doomu aadama mu nekk sufiyanke ñu ni comme xam nañu kii mooy sufiyanke comme xam nañu ni kii mooy sufiyanke kon tasawuf ci boppam kon tasawuf ci boppam mooy lan mooy lan ñu ni tasawuf ci rek ñu ni tasawuf mi ngi tënku ci ñaar rek taxzimu taxzimu amrillahi mooy màggal mbiru yàlla mooy màggal mbiru yàlla lépp lu yàlla santaane nga màggal ka te bokk na ci ñooñee màggal ña yàlla màggal màggal ña yàlla bëgg màggal ña yàlla fonk mooy ñi nga xam ne ñoo topp yàlla nga màggal leen mooy màggal nga la yàlla bëgg te loolu mooy nga teg ci suuf la nga xam ni neexul yàlla maa li yàlla bëggul te lépp lu yàlla bëgg nga fonk ko yëkkati ko ca kaw ñaareel gi ñaareel ba mooy sirqatu bi ibadillahi mooy sirqatu bi ibadillahi am nga am yërmande ci jaamu yàlla yi bañ leen a teg lu ñu attanul bañ leen a teg lu ñu attanul ñoom nit ñi bañ leen teg nit ñi la nga xam ne neexu leen bañ toroxal doomu aadama yi am yërmande ci nit ñi ci lépp nag boo leen jiitee nga yërëm nit ñi ndax ña feebar ak ña màggat ñëpp ak ña tële ñëpp a nga ca. boo yenu ak ñoom dara. boo yanu yenu ak ñoom ak dara. nga bañ a fexe. nga bañ a fexe. ba diisaay gi féetu ci ñoom. bañ a féete ci doomu aadama yi. mooy ci fànn gu nekk rek. nga yërëm doomu aadama yi. bañ leen a toroxal. bañ leen a toroxal. bañ leen xañ lañu moom. bañ leen xañ lañu moom. bañ leen a. bañ leen a. Euh, wan li nga xam ni say njëriñ la. bañ leen a wan li nga xam ne seen njëriñ la loolu yëpp ci toroxal leen la lu dul loolu ci ndimbal yëpp mooy sifqa loolu mooy tasawuf yomb na lool ci buñ koy wax waaye ak metti ci buñ koy jëfe yal na nu yàlla jàppale dimbale nu yoo yoo lii ma fi nettali léegi. la borom guddigi Cheikh ma Fodé Lamine dom doxal moy jàngi jëfe li mu jàng nek soufiyanke def tasawuf te boko xolé mom Cheikh Maam Fodé dañuy wax ni izan farad faradal abdu xanna rabbu gaay yu mel nonu ñom ci seen bop ñom dal dañuy béru toujours beer googu nag mooy dernier moment bi xam ñaar jëleen di jël dañuy dem accoté lu tax pour mën a jëriñ askan bi beru boobu nag ak làqu googu mooy dernier moment bi nga xam ne nag seen borom dana leen soxla ñu dem nag ngir jëriñ askan wi cheikh na cheikh Saad bu ni ka suñu bëgg bu la yàlla moomee bëgg nag cheikh maa foo de Lamine yaa ngi dellu waaye bu la sa borom moomee nga wax nit ñëw ñoom waa joogaan nga wax leen ni leen bu la kenn yóbbu ca armeel ya nanu la yóbbu ca gannaaw dëkk ba fu sore ndax ni ngay dimbalee taxawee nit ñi ndax ni ngay dimbalee taxawee nit ñi bu la yàlla moomee bu la yàlla moomee noonu nga mën a dimbale nit ñi ci bi nga làqoo te bu soobee yàlla ak yonent yàlla Muhammad loo sore sore dëkk bi Cheikh Maam Fodé Lamine jamono ngi dox ba dëkk bi dina ñëw wër la loolu yaakaar naa ne la sama maam Cheikh na Cheikh Saad boo xoon seen maam Cheikh maam Fodé Lamine yàlla def na ko tey bi ñu jëkk dem di ko ziyaare ji boobu gannaawu Cheikh maam Fodé Lamine dara nekk fa te loolu bërki démb rek la boobaak léegi nag yokkute am na fi nitu yàlla nag xoolul ku weex ka xoolul ku ñuul ka xoolul xeet ba xoolul fi mu jóge déedéet nanu jël loolu rek mooy li mu wax moom yàlla subhanahu wa taala sama sama gaa yooyu daal ragaluñu dara yàlla joxu leen benn xeet yàlla moo leen tàndal boppam taf leen ci boppam العربية وقت اللغة العربية الولي الولي موي بريمير تاو موي بريمير تاو موي بريمير موي بريمير وانتي تي بنين تي لوقا كيندي وايي الكندية الكندية الولي الولي اي قاربت موالاته للشيء موي كيغا خامني qarubat muwalaatuhu al muwalaat mooy li nga xam ni man tey jii fi ma mooy ki nga xam ni sama fii ma toog ci majlis bi ci majlis bi ki nga xam ni moo ma def muwalaat mooy Cheikh euh, Mame Fodé ak Cheikh Siaka Khalifa mooy ñi la gën a jege ñooñu la yàlla jël def leen taf leen ci boppam mu ñu jege ko lool nga xam ni kon yàlla amul mbokk te amul dom mom yàlla amul soxna amul wajur kon mom yàlla amul mbok ay jam la am jam yoyu nak moy xol moy xol ci li ñuy wax rek ni ci li ñuy wax rek ni tasarruful maliki fi mulki yusama adlan la juran nit lépp loo xam ne def nako ci alalam ken munu ko ni li nga def du nonu ken munu ko wax ni que li nga def du nonu ci sa alal ndax moo moom alalam lu ko ca neex lay def moo tax yàlla subhaanahu wa taala tànn ña mu bëgg ca nit ña def leen la mu bëgg fi may daaneele samay kaddu nag ñu jéggal ma nag guddal naa lool waaye am na solo lool mooy bis bi bisu nitu yàlla la faw ñu wax nitu yàlla boobu fa mu jaar ak la mu làmboo ak la mu làqoo ak fi mu jaar موي خمجن نياري سابا يدا خمني كوني خمنا لين كمين عمر بن الخطاب أك علي كرم الله وجهه نيوم نيار نيوني توك أك رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوي وقت نتو يالله با رسول الله وخلين نلين دانا أم بن واي بنيو سما جناو بنيوي مندرغام نيلا nitu yàlla bu mag la na ngeen ma ko nuyul te ngeen wax ka ni ka man rasulullah maa ko wax ni ka na leen ñaanal yow Umar bun Xataab ak Seydina Aliyun waaw kan moo mën a ñaanal Umar ak Aliyun waxu ko Aboubacar waxu ko Ousmane te ñu ngi toog mu ne nit yàlla boobu ne dana ñëw ca sama gannaaw. دنا فكني رسول الله نتي على بوي نيو داي فك يونتي الله محمد جن ادنا عمر نيكا واخ ني كان لا اك واي كان في فك واخ نو ماندار غام اك كين ني واخ كان لا موني ميغي تود ويس القرني مو واخ ني لين ميغي تود ويس القرني بوكو خولي نك ايش عذا اكبر بوكو خولي ايش عذا اكبر بو سدي بو سدي داي سانغو رك غاي سانغو رك تدو ديو تدو ديو داي ديديم da ngay didim mooy nag dafay didim moom nit kooku nitu yàlla boobu wees dafay didim ba pare day am poussière ndax day day am sax poussière ca kawam mooy mandargaam wante nag wante nag lu mu ñaan yàlla def kooku de wees moom lu mu ñaan yàlla def ko ko lu mu ñaan rek yàlla ànd ci ak moom may ko ko ñu toog ba ci khilafa Omar. umar bin Khattab. abou bakkar na. jàll na. Ousmane jàll ba ci khilafa umar ba ci xilaafa Omar. Rasulullah wax na ko dana ñëw ak waa Yemen. ndax Rasulullah wax na ko ni ko buy ñëw sax tektal ba moy mok wa Yemen ñooy ànd. ujaaji bu ñu rek. ujaaji ujaaj bu ñëw rek jógee Yemen rek mu ne ndax ku tudd wees ñëw na ànd ak yéen. ba ben at nak ñu ne ko Uways ñëw na ànd nak wa Yemen ñëw. Ujaaji dañooy ñëw di nuyu xalifa Ujaaji nag fu nu ñëw mu mënu sa na ñëw Makka dañuy ñëw nuy ci ko. bii yoon xalifa bi moo sol dàllam. bii yoon nag xalifa bi Seydina Omar bin Khattab moo sol dalam andak ak Aliyin karamallahu ànd ak Aliyin karamallahu wajhahu. kii di faruq ki di faruq ki di. باب العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ني انت مني بمذهب هارون من موسى الا ان لا نبي بعد ñoom ñaar ñu am di dox kii di faaroox kii nga xam dafa wax ni sama gannaaw bu yonent doon ñëw Seydina Alioune lay doon ñuy dox ci Medina Rasulullah ñoom ñaar ñuy dox ci Medinatu Munawwar ujaaj yëpp di song ujaaj yëpp di leen song yaa marhaban yaa marhaban yaa marhaban ñuy nuyu di xuus rek di dem ñuy nuyu rek di xuus di dem ni ana waa Yemen. ni ana waa Yemen. waa Yemen kontaan lool. waa daal kontaan lool. yàlla may ren de. ñun de eh, te ren li ñu yàlla may. mayu ko benn ujaaj ko waa Sénégal wala waa Mauritanie wala waa Chine wala waa eh, fenn. ñu ni ko yaa xalifatu rasulillah ñun. waroo woon déplacé ñëw ci ñun. waroo woon déplacé ñëw ci ñun waa Yemen. ñun waa Yemen ñoo war a ñëw déplacé ñëw ci yow. xam ngeen ni nag Umar al Faruq dafa dëgg lool mu ni yéen waaye man taxu leen ma ñëw de déedéet benn waay benn waay boo xam ne mi ngi ci seen biir délégation tudd Uwaysul Qarni moo ma yëkkati man ak Seydina Alioune mi ñu ni ko misluka laa yasiru ila amthalihi ñu ni ko misluka laa yasiru ila amthalihi di dem ci ku mel ni moom ni nga ku mel na yow di dox di jëm ci ku mel na ko kookee nga xam ni dafa didim poussière mi ngi ci kawam si ooy si mii moo ñuy sàmmal suñu gëléem yi wala yakulu min at-ta'am illa al-'ifn te du lekk ñam bi nga xam ne lu dul suñu desit bu demee ba am arrière gu lay lekk te moom sax ooy si mii de bu nu lekkee ba desal desal googu nga xam ne daf fay yàgg lool ba ñam wa soppeeku sax moom lay lekk moom ooy sil xaar bi xeeb nañ ko xeeb nañ ko xaat ndeysaan Omar ibn al-Khattab de وانت عمر بن الخطاب ده سيد البشر سيد البشر صاحب الشفاعة صاحب الشفاعة سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موكا يبل تكتل كنم يمل دي دي دي مبشيرا كوام وايا من نقدر ديك خيب لول ندخن ملوكانو نيو أولو كومو نيو نيو أولو ويسل قرني مدادي نيو عمر سونغو عمر دادي كا سونغو taf ka ci dënnam daal di ka langaamu nuyu ko Alioune daal di ka nuyu def ko ko taf ka ci dënnam saafanteeg moom bi mu saafanteeg moom mu ni ka rasulullah yi ngi lay nuyu. mu ni ka sayyiduna Muhammad rasulullah mi ngi lay nuyu yow Uways Silqaan. Uways waxu ko ah ndeket rasulullah na ma waxu ko. Uways niw de niw ko ndeket ndekete xam na ma. dafa ni ka maa ngi fay rasulullah. ndax xamoon na ni rasulullah yóbbante na ko nuyoo ci ñaar ñii. منك من من أمير المؤمنين رسول الله نينا غنيان من أك سيدنا أبي طالب مي وي سيد نيكو فدي لا تي دافا الله نينا من امنا بن ماندارغا بو سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين نيك رسول الله نيتالنا من نينا امنا بن ماندارغا بو نيك تي ياو وي سرقارني ميغي سي سوف dama bëgg nga wan ma ko uwaysul xaar ni di daal di yëkkati mbu boobu mu wan ko mandarga boobu nekk ci biir bokkataanam wan ko Seydina Omar. Omar ni ko lan moo indi mandarga bi. Omar ki Omar ni ko dama lay laaj lan moo indi mandarga bi uwaysul xaar ni. dama jiboon. mu ni ko man daal dama jiboon. ba ñëpp ràññi ma. ba ñëpp ràññi ma. fu ma romb ñu ni fu ma romb di ñaan yàlla lu mu ñaan yàlla mu def mi ngi nii. fu ma romb rek ñu ni góor ga jëpp da nga xam ni lu mu ñaan yàlla rek yàlla may ko ko mi ngi nii. ma ñaan yàlla. ma ñaan yàlla. jib boobu mu dindi ko ci man. jib boobu yàlla yaa nekk dind ci man. bañu ma ni ma yàlla sàkkee. bañu ma ni ma yàlla sànke de. comme dafa nekk mandarga. comme dafa nekk mandarga. ñëpp di ma ñaan ma ñaanal ñëpp di ma xàmmee di ma ñaan ma ñaanal leen. ma pour ma nëbbatu. moo tax ma ñaan yàlla. moo tax ma ñaan yàlla dindil ma jib bi. ma ni nag su yow yàlla nag ma bàyyil benn tomb bu jub ci sama poqataan ngir ma koy gërëmee dégle ka sant yow sunu borom yàlla defal ko Uwaysul Qarni Umar tàllal euh, ni ko daal di ñu ngay dem mu ni ko ndax doo ànd ak ñun Uways mu ni ko déedéet ndax maa ngi ci délégation bi mu tàggatook moom dem ba Seydina Umar Amirul Muminin ñëwee ba këram ni waa kii رسول الله وقتي مم. اك لي رسول الله وقتي موم اك ني مو مل موم اويس القرن اك ني خامني مو اندال ديليغاسيون بي جوغي يمر تي خامو كي من ماي امير المؤمنين كي دال من دال ماي بريزيدان دو لا ريبوبليك داماي يوني داماي يوني ñu andi ko par la force ngir ma teral ko ba mu yónnee ay ndawam ñëw ci waa yemen ni leen ana ouwéy sulqarni ñu ni ko kooku de ba fi amirul muminin a jógee la tagato ak ñun demna na fu mu dem bi ñu ñewé wax ko Omar bi ñu ñëwee wax mu dadire di ree Ali Nika xanaa da nga fatani ki kii ay radaram موم اوي سير خير ني اي ردارم بلا غي خلات بور ديف لي بلا غي خلات ديف دارا تي موم وون نك ني دنك ديف يالا وون نك ني كدي نكو ديف سول دالام ديم دنك بغا جيل سي موتاخ يالا وون نك ني دنك جيل سي سولنا دالام ديم نا موم اوي سير خات بور وون ني يين سايو اي ييري اي ييري اك ميلوكان اك ميلوكان اك باركي اك اك ام ام اك خم خم اك خم خم إيه. yooyu mën na yooyu mën na sax ànd ak wëliw de waaye du obligatoire ni bu tubaab di wax la bi ne fait pas la ku yore ay saako ku yore ay saako mën na jël saako su tilim lool mën na jël saako su tilim lool def ci ay or jël benn saako bu rafet jël benn saako bu rafet feesal kaak mbalit feesal kaak yeew ko sànni ko sànni ko ki nga xam ni nag apparence moo koy réeral. ki nga xam ni nag apparence moo koy réeral. bu gisee saako daw. bu gisee saako mbalit ma day daal di daw. ni kat for naa lu rëy. su ubbee nag fekk sa mbalit. bu rombee saako su tilim soosu. bu rombee saako su tilim soosu. romb ko ni lii dara nekkul. romb ko ni saako bii daal dafa tilim ci kaw dara nekkul ci biir lu dul mbalit. fekk or baa nga ca biir lépp nga fa. nit ñi jaamu yàlla lañu. nit ñi ay jaamu yàlla rek lañu. kon jataay bu nu teewee ñëpp bu ñu ñaanee ni amiin ñëpp bu ñu ñaanee wax ni amiin yàlla dogal yàlla dogal loola te dañuy wax toujours ni te dañuy wax toujours ni kam min qabrin yuzaaru wa saahibuhu fi naar kam min qabrin yuzaaru yusaabihu dafa bare ay bàmmeel ñu taxaw di leen ziyaara bare na ay bàmmeel yoo xam ne ñu ngi taxaw di leen ziyaara te borom te borom mi ngi ci biir safara ma nga ca biir safara mbaa ma ko tene yal nañ ci yàlla musal ca bàmmeel yooyee mooy ni dafa am ñi nga xam ni mooy dafa am ñi nga xam ne dañuy mbubboo diine dañuy mbubboo diine te du ñoom te du ñoom déedéet fekk nag ki nekk moom. fekk ka nekk moom. waaja waaja. ñu bare sax xamuñu ko. ñu bare sax xamuñu ko. yàlla dimbale ay nit. yàlla dimbale na ko. ñu ràññee. ñu xam xam. dañ ko war a siiwal. dañ ko war a siiwal. ndax njëriñ. ndax njëriñ. ñëpp dugg ñëpp jëriñoo ca njëriñ googu. toujours moo dugg ci fànnu. chef xasu bi ibadillahi. ne toujours nag loolu moo dugg ci. شفعته مو يرمني بيغا خامني موم لا نيو واخ دالو على الخير كعبادي كولا وان جام ولا ولا ولا ولا لو باخ ولا دمال تي ما فودي مو ديمبل لا ولا دمال تي امام بونا ني مو ديمبل لا بولا كوكو ديمبل كلا وان كلي ديمبل ديمبل نلا كلا وان كلي ديمبل ديمبل نلا yal nañu yàlla boole jàppale ma kon ca ñooñee ak ñooñoo la Cheikh Maam Fodé Lamine nag yàlla faj soxla yi bijaayi waliyihi wa abdihi wa saalihi Cheikh Maam Fodé Lamine Ndong ak mbooloom wali ak mbooloom ñi nga xam ne ñoom la yàlla sant ci barke sunu wasilatina sunu wasila sunu sang sunu yaakaar ak Cheikh ne Cheikh Saad bu ak mbooloom julit amin yàlla jubalal ñu yàlla jubalal nu jox nu jàmm jox ko réew bi jox ko ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi ci aada ak ci diine ak ci lépp yal na leen yàlla boole jàppale ñu ngi jéggalu bu baax eh, ci kàddu gi eh, guddal nañu te ñuy jàng war a jàng dafa fekk ni rek bu tant amee dana war a xalaat toujours la waral tant ba ak ki waral tànt bi ñu wax ci ci jaar-jaaram ni mu doon doxale ak ni mu doon dunde moom ak ña nga xam ni ñoo bokk la ñuy dox wala ñoo ko bokkoon te ñoo ko bokk sax ba tey ndax ñoo ñu dañoo nelaw rek nawma taarish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 سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين كما بشيخ طالبويا يكتي لنسان الله يتاكو انا نجيبك سيد الخير يكتي لنسان انا نجيبك سيد الخير يكتي لنسان الله انا نجيبك شيخ ناصر بو حيدره سن الله يتاكو انا نجيبك شيخ صبو حيدره yëkkati leen loxo yi ca ana ñi bëgg Cheikhouna Haydara loxo ca ana ñi bëgg maam Cheikhouna loxo ca ana ñi bëgg ma Fodé Lamine Ndong yéen seeni loxo yi ca ana ñi bëgg maam Fodé Ndong yéen seeni loxo yi ca kaw ci def teexe yëkkati leen seeni loxo yi ca kaw kaw ana ñuy bëgg sëñ Babacar yëkkati leen seeni loxo yi ca kaw ana soppey sëñ Babacar yëkkati leen seeni loxo yi ca kaw kaw liir buy taayay liir bay mooy sunu soppe mooy sunu ko dogal te jàmmanu ci dara yàlla ko dagal te jàmmanu ci dara cheikh ma fodé cheikh ma fodé cheikh ma fodé yal na fi yàgg yal na fi yàgg yal na fi yàgg cheikh fi yàgg cheikh ma fodé na ma xutu nan bi la alame magal rasul مرفع دلو واللي ما مرفع دلو واللي ما مرفع دلو واللي ما مرفع دلو لا اله الا الله اله الا سيدنا رسول الله لا اله الا الله اله الا الله واللي ما مرفع